waaw maa ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin moom ma ko joxoon si si lu ko neex ci sarataxlu mustaqim moo ko jël aussi si lu ko neex munu ma si dara yàlla du xëccoo kenn bu soxlaa nga soxla la mu soxla moom mooy am waaye yow li nga am danga soxla am ki nga xam ne nag waa ji dem la mu ngi dem gërëm naa ko sant Nako, déplore sa courte vie mais bu doon bu lolu sant nako gërem nako man wax son papa il a tout il a tout fait pour moi lepp lo xalaat rek lu bax la def nako def nako defal nako ndeyam defal nako jabaram defal voilà, ma euh, sa générosité ak ses actes de bienfaisance n'avait pas de limite ku xelam daj rek bu defal ko Ki nak je savais que man là, à en certain moment j'ai senti qu'il pouvait pas faire long feu parce que dom loo ko bëgg bëgg bëgg amna na yenn melokaan yo xam bu ko yoré yalla la ko gëna a bëgg nañ ko tek si loxol yalla ñaanal ko yalla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla ubbil porte àjjana yi doo eh, doom di xam ne moom la fi bàyyi yàlla na yàlla teg seen loxo si koom yàlla barkeel leen yàlla may leen wërgu yaram ak fan gudd may ko bépp jullit eh, ñi nga xam ne tey eh, su sumaay dëkkandoor lañ waxuma sumaay mbokk de parce que ñoom si obligatoire mais ñi nga xam ne sumaay dëkkandoor laay wax ñoom ñëpp ku si nekk maa ngi gërëm di sant parce que gis naa seen taxawaay. gis naa seen euh, jëf seen action yëpp gis naa ko donc mënu ma dara lu ñëw it gërëm leen sant leen di leen jaaree li nga xamne ma ñom ñoko bok et le message que je vais lancer aux jeunes de Koutal qu'ils prennent exemple sur Mohamed Ndao bu ñu nangu mu gën leen nañ ko ut a gën waaye bu ñu nangu bu ñu nangu bu ñu nangu gën leen j'ai perdu mon fils. J'ai perdu un ami. Un ami là-bas. wax donc je ne am pas si je am naqar mënul nekk c'est pas possible ce monsieur qui qui qui bi def si j'étais présent mais avant mourir, je ne sais rey mais du ça def sant yàlla sentiment euh, de satisfaction. Vous savez pourquoi Parce que j'ai été honoré par l'État. J'ai été honoré par l'action policière. Donc, je ne, peux, qu'avoir qu'un sentiment de satisfaction. Sincèrement. Je suis satisfait envers mon fils, je suis satisfait envers ma nation. Il était un exemple j'ai tout à, tout à l'heure, j'ai dit à la population coutaloise, aux jeunes de Koutal, de prendre exemple sur Mohamed Daou. Parce qu'il ne doit, pas, doit pas accepter que Mohamed soit meilleur que Donc, qu'il prenne exemple sur lui. Merci.